mbokki Sénégal mbokki amateurs yi le roi de la lutte simple ñu gën koo xam ci Jax muy Jax Wrestling Production moo ne dama fa yéene dellu siwaat defati sama manin fi ma daan jaar di bégal amateurs yi di dajale mbëri ci ay journée yu am solo fa laa fas yéene jaaraat ak yéen le 5 février ci terrain gaal gi daal di teg mise u de francs fa ma ne ko ah Jax mbër yi bëgg na noo gis seen bopp ci bés bi de mu ne ma li ni moo tax ma def ko ñetti catégorie poids lourd yaak poids léger yaak nga ca biir ma ne ah kon leen butéel yi te tooyal programme yi te xam le 5 février ci terrain gal gi jag si ñeenti millions la leen tegal animation ba mu ne dio de son saa yi may organiser dénk leen micro bi dénk leen animation bi muy mbay ak lum gaynde ak mbin farba feggu ak mu mongom ñu daal di def animation bu amul fenn kon mbokki amateur yi bés baa le 5 février ci terrain gal gi ñu ànd ak jag si wrestling production ci 4 millions de francs CFA.